li may buntu juróom benneel fil xajji ci aj mu ne wooxu moom aj waajibun aji war la fil umuri su dund marratan benn yoon al xuri wal gor al xuri si gor al mukallafi cay al mukallafi kay mukallaf al mustatii kay aji attan kon ñeent sart yi day day day daje nekk yi nekk gor nekk mukallaf ba pare mën ko am alal ji maa nga am mën-mën ji am doole ji waaw kon walaay sex du wér moom aj illaa min muslimin bi rek ci jullit kon jullit ku dul jullit su ajee aj war na ci moom mais du ko defee du wér wala hu ñel na ko arbaatu arkaanin ñeenti ponk al awal bu njëkk bi al ihraamu mooy armal li jamono ci jamono maxsuusin buñ ko jagleel dafa am jamono ji nga xamante ni ci jamono jooju dong nga mën a armale ñu ne ko jamono jooju mooy jën jamono mu ne waxoo moom shawal mooy moo di shawal wa dul qaadi ak ak shahru dul qaadi wa dul xijjati ak shahru dul xijjati ñetti weer yooyu mooy ñetti mooy jamono yi aj wa makaanin ak jamono makaanin ak place maxsuusin buñ ko jagleel nekkul makaan bu la neexee rek makaan bu la neexee rek mën nga fa ajee dafa am makaan bu ñu ko jagleel mu ne waxu moom makkatun mooy makka lil muqiimi ñeel aji sax bi haa ca makka waxtaan ihraam yi jamonoy armal dégg ki nga xamante ne jamonoy armal makka la ko fekk mu ne kooku makka makka lay armale wa dul xulayfa dul xulayfa dina fa armale dina armale dul xulayfa li man ñel ki nga xamante ne tawajjaha min al madina dafa bàyyi ko madina ñëw ak madina la dul xulayfa lay armale doo ko ñëw màkk mu ne wal jox fa jox fa li man ñel la képp koo xamante ne tawajjaha jublu na mi misra bàyyi ko si misra wa sham ak sham wal maghrib ak maghrib mooy soo mu ne ñetti bërëb yi ku fa bàyyi ko mu ne jox fa ngay armale waaye yalam lam ak yalam lam li ma ñel képp koo xamante ne wajjaha jublu na min yaman bàyyi koo si yaman wa zaatu irqi li ma ñel képp koo xamante ne wajjaha jublu na min faris bàyyi koo faris wa xurasaan ak xurasaan mu ne walaa ne walaa yéen aqdu du fasu moom armal nag illa bi niyatin rek si yéene maqrunatin bu nu lënkale bi xawlin si wax aw fi'lin mbaa jëf mu ne moom armal nag du mën a fasu du mën a wér loolu nag dañ ko yéene gi dafa lënkaloog wax mbaa jëf ginnaaw ba nga yéenee armal yéene aj bi ngay aj moo xam ifraat la wala tamattu wala qiran da ngay da nga si boole yéene googu da nga si boole wax mbaa nga boole si jëf waaw wax ji mooy commencé la bay kaw nga xam ne dugg na ci aj waaw jëf ji mooy nga commencé dox bu fekkee yaa ngi dox dégg nga waaw mu ne woy saxabu soppeef na lil muhrimi ñeel aji armal sopp na si moom izalatu shaatihi mu dañal ay sugg-suggam xabla ixraamihi lu njëkk muy armal ci lan bi xal bi xalmi azaafirihi ci lelli ay weewam sugg-sugg nag mooy setal da dagg say wee war say karaw suuf ak sa karaw foqataan yi demee noonu loolu mooy dañal sugg-sugg moo tax mu ne bi xalmi azaafirihi ci lelli ay weewam wa izalatu ma ak dañal lépp loo xamante ne ala badanihi nekk na ci yaramam min shaarin ci kawar waaw sopp nañ ci kii armal lépp loo xamante ne sugg-sugg yi nag ci yaramam yëpp mu dajal ko suufam poqataanam karaw sikkinam yooyu yëpp mu dajal ko am sa bic woo sunoonul ihram sunnay armal nag arbaatun ñeent la bi si njëkk alxusu mooy càng sangu muttasilan mbir muy aji jokkale sangu ga bi si armal ga dégg nga war tajarud ak rafle ñel ma xiiti si yére bu ñaw fii di daa in si làmbaay wa izar ak taraxlaay kon taraxlaay ak izar rek la mën a def rida ak izar taraxlaayu làmbaay war naa ale ak ñaari daal yoo xamante ni kaw gi daru ci nekk ay tarax lay doon wa salaatu rakaatin ak julli ñaar rakka min gayri faridati su ludul min gayri faridati su ludul farat waaw wa salaatu raka wa salaatu rakaatin min gayri faridati su ludul waaw fi waxtu jawaaz wa illaa ahram bi gayri salaati si waxtu bi nga xamante ne julli naafila tax fa dagg mais fekkee waxtu bi ngay armale dafa dafa tombé waxtu waxtu boo xamante ne julli naafila araam na fa kon boobaa da ngay armal rek bi xëy salati si du jël
bi leeni mu ne wa talbiyatu ak labbayka dañuy enregistré mu ne waye moom soo ko xamul mooy labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak mooy labbayka wuyu naa la allahumma yow yàlla labbayka wuyu naa la labbayka wuyu naa la waaw la sharika déet benn xeetu bokkaale laka di la ñeel waaw woo gi ma lay woo nag bokkaale wu ma lay si kenn waaw la sharika laka labbayk mu ne labbayka wuyu naa la inna alhamda naka cant wan ni'mata ak xéwal laka ñenn la wal mulk ak nguur la sharika déet benn xeetu bokkaale laka di la ñeel ibnu umar nag wa zaada umar umar daan na ci dolli su waxee lépp da ci daa dolli labbayka za naamaai wal fadli al xasan labbayka marhuban minka wa marhuban ilayk na umar moo tax wax bi yokk da ci daa yokk li labbayka za naamaai wal fadli al xasan labbayka marhuban minka wa marhuban ilayk labbayka bopp nag sopp nañ ci nga digg doomal sabab bañ ko yëkkati ci kaw bañ ko suufal tey ba ba kenn du dégg li ngay wax waaye nga digg doomal ko waaw dégg nga mu ne ñu ko soppee ci la béykat nag ñu ko soppee ci mboolem zikkar yi mboolem tudd yàlla yi waaw mboolem looy zikkar ci wàllu yàlla man la nga ko ci soppee bëgg ñu ko suufal sa baat lool bëgg tamit nga yëkkati ko waaw waaw mu ne wala yaqta'u bu mu dog bu mu bu mu arrêté ak talbiyata labbay kaw ga xataa yadxula ba te mu dugg màkka màkka mu ne labbay ko googu nag du ko arrêté mukk du ko dog lu dafa dugg màkka waaw waaye soo demee si mu daw wana ah bi nga xamante ne kii moo ko defal Ibnu Qaasim wala
mu daw mu daw wana moom nee na li fekk tàmbali woo tawaaf loolu nag labbay kaw ga kon wala yaqtau du dog ak talbiyata labbayka bi xatta yadxula màkk ba mu dugg màkk fa ida taafa su lem woon na kaaba gi saa mu dox safa ak marwa aawadaha na baamu labbayka ba waaw na ko baamu nag aqiba kulli salaatin julli gu nekk rek da ngay def labbayka loolu mooy aawadaha si leen bu wër kaaba gi dox safa ak marwa day baamu labbayka di rawaaxi musalla arafa jëm ba ngontal julluwaay arafa musalla alayhi wa alladhi yuqaalu lahu masjid ibrahima wa masjid am na waaw musalla arafa moom lañ tuddee foofu masjid ibrahima jàkk ibrahima ak masjid arna ak masjid numra ci masjid yooyu mooy musalla arafa ah soo demee ba àgg foofu nag foo ngay arrêté la waaw mu ne wa awjuhul ihraami ana moo armal arbaatu ñeenti la waaw ñeenti façon armal moo am dafa am armal dafa am ifraat am tamattu am xiraan am dafa am ifraat am tamattu am xiraan waaye nag wa afdaluhu wa afdaluha ba ca gën al ifraat mooy ifraat ifraat nag mooy nga aj dong bañ ci mélangé bañ ci mélangé umra loolay ifraat ah fa ngay armale
ku nekk ku nekk ku nekk ku nekk am na koy armale ñi nga xam ne dañoo jógee Medina
waa ifraat bu fekkee Sénégal nga jógee jox fa ngay armale jox fa jox fa ngay armale Madina ngay armale bu fekkee Sénégal nga ah non non dugg maag sa armalu dañoo war
boo ko xasee ba dugg arma sa arma loolu looy da ngay tudd rek
waaw ndaan baa sa yëfu ndaan baa sa yëfu
soo ko fàttee ba dugg maag armalu mu ne wa afdalu ifraad bi foofu moom ay xel mooy ma armal bil xaji si aj mu fii leen di aji wéet waaw suma ida faraxa toog nem noppi na min afaal la xaj yi si jëfu aj bu sonn sum naan na nag la boo ñëw ay yox dima mu armal bi umra ci su umra mooy da ngay armal aj dong waaye léegi nag sum naan nan soo demee ba ba aj ba pare nag ba aj aj bi jeex tàkk nga armal benn armal nag pour umra mu ne wa ixraamu rajuli armal góor nag fi wajihi aji nekk la ci xaru kanamam war a fii ak boppam li mu bëgg a wax rek mooy góor su xasee ba armal dafa war a muur jarmam yëpp ba mu des boppam ak xaru kanamam waroo sol mbaxana waroo kaalaw xaru kanam bi tamit waroo si muur dara fa yaxrumu dina araam kon alaykum satbaha mu muur leen ñoom ñaar waaw bi maa ci loo xamante yu addu def na ko lim saatira muy saatir kala imaamati ndiki kaala wala xirxati wala xirxati ak mor sagar mu ne wa kullu ma lépp loo xamante ñun tafawa def na jëriñoo bi si moom minal xarri ci jamonoy tàngoor wal bardi ak jamonoy seddaay fekkee jamonoy tàngaay nga yére yére bu diis ah doo soo fa tombeek jamonoy seddaay amoo droit sol ko soo fa tombeek tamit mu ñoom ñu nekk ci jamonoy tàngaay amoo droit sol lu oyof oyof jëfandikoo ko waaw yow daal sa taxlaay ak sa isaara bi daal moom ñoom ñoom nga am droit sol bu ko ajju di jot waaw mu ne wa yaxruma dina aram ba tey ali si moom labsul xaatim mu sol jaaro takk jaaro wa ixraamul marati armalu jigéen fi wajiha aji nekk ci xaru kanam kaw kafaha ak ñaar teex yi faqat dong moom fépp war a muur am rek xaru kanam bi ak tenq yi waaw fekkee sax dafa nekk jigéen joo xamante ne sax dafa rafet rafet bu jéggi da ba góor yi suñ koy xool mën nañ mën a yàq seen aj ah sopp na si moom mu ut muraay bu eef mu ko si kanam wala ha ñan la ko mi ngi ni wala ha ñan la ko an tasdila mu sëmbatal ala wajiha ci xar kanamam sawban mbalaan li aji satiri ngir muur li aji satiri ngir satiri ngir muur kanam gi ba ñu fitnaal góor ñi wala taxrizuhu bu mu ko ñëwee nag di ibratin ci pusi ndax waxoon na la arab na nga sol nga war tajaru mi naxiit ci sunna aj la bokk wa yaxrumu dina arab alal muhrim si aji armal masu tiibin laal gët goo xamante ne yaa alaqu dina aju bi jësadi si yaramam wastoo bi ak si yérem waaw soo xasee ba armal tamit araam na si yow nga laal parfum araam na si mo- moo xam si yérem koy def wala sa yaram waaw tel miski ni ki gëtu miski wala ambar ak gëtu ambar ay façon parfum la sag mu ne wa dëx nun rasi ak jiw bopp araam na si yow wa taqlimu zufin ak lelliwee araam na si yow wa ibanatu shaarin ak dañal karaw wal jimaa ak booloo wa muqaddimatihi ak yu ñu jiital ci booloo yi yëpp ah boo ci def yii nii ah boo ci def boobaa da ngay tuuti rek jotee ko ko jangee ko ko waaye nag wa yafsur dina yàq alxajju aj bil jimaa ci booloo booloo mu soo ko defee ci aj aj day yàq il waqaa nem def nga ko nem tabbi na qabla lwuquf li njëkk ngay taxaw taxawaay arafa aw baadahu mbaa nga def ko ginnaaw ba nga taxawee taxawaay arafa waaye nag qabla tawaafil ifaada bi lu njëkk ngay wër ngay def tawaaf ifaada wara mi jamratil aqaba ak saani jamratil aqaba fi yawmi nahri ci bisu rajab aw qablahu lu njëkk bisu rajab mais soo ko defee nag ginnaaw ba nga sànni jamratil aqaba kon booba loolu la waaw mu ne arrukunu saani ponk ñaareel ab tawaafu mooy wër kaaba gi mu ne walahu ñen la ko moom tawaaf waajibaatun ay war war wa sunanin ak i sunna wa mustahabaatin ak i ak yuñ sopp wër kaaba gi nag dafa am yu si war am ay sunna am yu ñu sopp nga def ko si wër kaaba gi fal waajibaati war war yi nag sittatun juróom benn la assalaamatu mooy mucc min al xadasi si toj wal xabasi ak sobe waaw mooy sa yaram ba dara dara dara bañ a takk sa yaram ci sobe mooy xabas ah yére bi nga sol dara mu bañ a takk benn sobe fi ngay wër ka- fi ngay wër kaaba gi tamit fi ngay wër ah fi nga place bi ngay wëree bañ a takk bañ a takk benn sobe loolu mooy xabas xares nag mooy nga bañ a ngelawal mooy toj rek wa satura awrati ak muura awra sa yaram tamit sa awra dara waru si feeñ wa jaalul bayt ak def néeg bi mooy kaaba gi an yasaari si côté caabañ kaaba gi soo koy wër caabañ nga koy wëree doo ko wëree ndeyjoor wa tawaafu wër sabaatu ashwaatin juróom ñaari wër daaxilal masjid si biir jàkka ji wa xuruuji jamiil badani ak génne mbooleem yaram anil bayti si néeg bi sa sa yaram yëpp tamit nga génne ko si néeg bañ a wéeru si néeg bi nga koy xaw a daanu tuuti di ko wër wa salaatu rakaatin ak julli ñaar rakka aqibahu si ginnaaw ginnaaw ba nga wëree kaaba gi ba pare xalfal maqaam wa masuun waaw yooyu mooy waajibaat bi nga xamante ne boo si bàyyi da ngay tudd rek wa masunaatuhu yi nu sunnaat si aj xamsatun juróom la almachu mooy dox waaw yi nu sunnaat si si wër kaaba gi juróom la almachu mooy dox waaw kon soo waree di wër kaaba gi hmm, mbaa ñu yenu la ngay wër kaaba gi te nga mën a dox feebaroo dara jotu la ah kon boobaa da nga tuub rek ne la bokk waaye fekkee nag da ngaa feebar wala mënoo dox yéen dox yu yàgg yi nga wax mbaa ñu bol la mbaa ñu yanu la di la ngay wër kaaba gi kon boobaa dara waru la waaw niki noonu tamit su fekkee tawaaf bi nekkul tawaaf bu waajib nekkul tawaaf farata gi hmm? comme tawaaful xudum comme tawaaful euh, xudum wala tawa- tawaaful widaa xam nekkul farata soo koy def euh, nga nga wat mbaa ñu yedd la nga def ko donte mën nga dox sax dara warul ndax nekkul nekkul waajib waaw mën a wa taqbilul xajaril aswad ak foon xa- foon xajarul aswad yi fii ci gémmiñam ci sawtil awwal ci wër gu njëkk yi dégg nga waaw xajar aswad wa kaana muttasil bil mawaqit waaw waaw fi shawtil awwal ci war gu njëkk gi in xadara ne mën na ko war gu njëkk gi daal lan sunnaal ah soo àggee sa xajar aswad nga fonto sa gémmiñ walam sur rukunul yamani ak laa rukunul yamani fi awwali shawtin ba tey ci njàlbeenu ci war gu njëkk gi waaw الذي يعقب الحجر الأسود في الطواف وسنة المسجد إما أن تكون بأي شكل waaw kon bu njëkk bi moo nekk moo nekk sunna mais yi def soo ko fóonee moom du ball lu ko sax waaye war bu njëkk gi ah fii lañ sunnaal nga laal nga fóon xajar aswad ak rukunul yamaani mais waru ci des nag juróom benn ci des duñ ko sopp wa duaaw ak ñaan wa salaatu ak julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ramul wa ramulu ak ak ñukk li rijaali ñeel góor ñi fil ashwaati salaat ci waru njëkk ñetti waru njëkk yi fil ashwaati salaat fil ula ci ñetti waru njëkk yi ci tawaaful xudum ci tawaaful xudum waaw kon fekkee tawaafu widaa la wala tawaafu boo xamante ne tawaaf tafawuc la coobarew la waa amul ñukk waaw ñu fi ñoo tamit tawaaf ifaada amul ñukk kon tawaaful xudum dong moom lañ sunnaal si góor ñi ñu ñukk ñett yu njëkk yi ñett yi ci des ñeent yi des ñu dox mu ne woo moom soo xamul ñukk faw xal ma si gën naa kawe daw dox wa duna jëli te gis na daw diggante dox dox la nekk ak daw waaw wa mustahabaatu yi ñu sopp ci war kaaba gi kasiratun bëri na mi naa bokk na ci tarkul kasir bàyyi lu bëri min xilaatul xalaat ci ak alquran wa tarkul kalaam ak bàyyi wax yu bëri wa inshaadu shaari ak sadd ay way wa ta- ak bàyyi sadd ay way ak sadd ay way sopp ñu ko ci waaw watar ko suri maayi ak bàyyi naan ndox illaa li atashin rek mbar waaw bëgg ñu fotool naan ndox dama bëgg nga xaar ba mat dëgg nga doog a naan wala yu fi na bëri nag alxari bu ndoxaleem mais tawaab si wër kaaba gi ndax ginnaaw moom na fay naw naka wër kaaba gi afdal moo gën fi xaqee si àqam noonu ko ci julli fekkee nag xarib nga fa dëkkoo fa na nga faa ñëw mu ne ngay bëri loo wër kaaba gi moo ëpp doole foofu nga nga nga fanaanee julli ndax ginnaaw yow nekkul jamono ji nag nga fi ñëw jamono ji nag nga fi ñëw ta xamoo sax ba xam lii la sa dund bi fi ñëwaat am déet kon waaw kon boobaa li ñu gënal mooy nga wër kaaba gi waaw ndax julli mënu ko def la neex woy saxabu soppeef na li ma ñel ke ñel képp koo xamante ne jëla sa toog na fil masjid si jàkka ji an yatawajjah mu jublu ila kaaba si jëm kaaba ga sopp na nag foo toogee si jàkka ji rek nga jublu kaaba ga waaw watu kow suwee fi alkalaatu jàng wa talbiyatu ak la bay kow fii si jàkka ji adukunu saris si béef na waaw soppeef na waaw voilà Euh, waaw si biir alkalaatu jàng wa talbiyatu ak la bay kaw fii si jàkka ji waaw li ma jël si ma ay taw ji la kaaba ji. waaw war talibet ak la bay ko fii ci tawaaf sooy wër kaaba gi sim nan ngay jàng baa nga nekk foofu naan naan la bayk adukunu saalis ñetteel fonk ba assaayu may dox bayna safa diggante safa war mara war mara ak marwa sabar ashwaatin juróom ñaari wër waaw yab daw day tàmbale bi safa ci safa wa yaxtimu matale bi marwa ci marwa wa yaud mu lim albada doore ga sawtan muy wër war a yaata sawtan waaw dem bi wër lay doon dellu si bi wër lay doon soo jugee safa dem marwa muy benn bu jugaat marwa ñëw safa muy ñaar waaw noo koy compter jugaat safa dem marwa muy benn jugaat marwa ñëw safa muy ñaar noo koy compter ba mu def waaw moo tax mu ne wa yabdaw day tàmbalee bi safa si safa wa yaxtu mu mottalee bi marwa si marwa wa yacudu mu lim albada a doore ga sawtar muy wër wala yaatu dellu si ga sawtar muy wër kon dem bi wër la dellu si wër na mu ne walaay seexu du wér nag moom moom safa ak marwa dox safa ak marwa du wér laa bi taqaddumi tawaaf luul ci jiital tawaaf luul da ngaa tawaaf lu njëkk nga koy def kon nag dafa war ci moom moo méngale tawaaf ba ak ak ak ak ak safa ak marwa ga boo ko ne si charte yi wéral dox safa ak marwa nga jokkale ko eh, mu jokkaloog wër kaaba waaw fekkee nag da da nga leen tàqale da nga tàqale seen diggante mais yàggul noonu ngir noppalu kon boobaa doy na baax na waaye li ñu gënal nag ah, euh, waaw li ñu gënal nag mooy nga jokkale ko waaye fekkee nag dafa yàgg diggante bi dafa yàgg da ngaa tawaaf toog lu yàgg waaye dañ sa dox saag marwa kon boo bàyyi soo soo doxa saag marwa pare da ngay tawaaf xat dégg nga mu ne walaay sotti dewul chat añ yakkuna mu nekk ak tawaafu tawaaf ba waajiban di lu war way saxaabu soppeef na sii si moom su wutu salaati chat ci julli yi ñu sat yi ñu satoon si julli yëpp si wala kaa ba sooy dox faag maro sat ñu ko si yow nga xëy istiqbaal yi ñu julli xubul waaw wal mukk ak sax ala sawa si safa wal marwa ak marwa loolu tamit sopp nan ko soo doxee ba safa nga taxaw fa yàgg diir soo doxee ba marwa taxaw fa diir wa duwaaw ak ñaan alayhima si ñoom ñaar foo si dem tamit nga taxaw fa lu yàgg ñaan koy soxla wala fi dalik didi nekk didi nekk nag ci jamono ji nga fay sax xaddul doyoo wax ñu la nangam jamono nga fay am yaa xool ñu la doy rek wala yaxdar nag na na watandiku mi maasi li nga xam ne yafaaluhu dina ko def baaduhum ñenn si ñoom minal jari ci daw minal safa bàyyi ko safa ilal marwa jëm marwa waaw ñi nga xamante ne nag dañuy daw mooy loolu na nga ko watandiku wala daw lépp tey na maa xam ne saxu dina gaaw ar rajul góor dunal mar ati wala jigéen beneen mi lay ne ax dayin diggante ñaari mi la ax dayin waaw mi lay ne ax dayin deux kilomètres la mi lay ne ax dayin waaw faqat foofu soo demee sax ñoom da nga fa def genre lu vert soo demee ba àgg nga ko xam waaw soo fa àggee nag dina bëgg fekkee góor nga nga fekkoon doon da nga doon dox nga waax su la fekk lu ngay waaxu nga daw diggante boobu mu ne wala war a wala suñu kon fii jëme saa yi si moo leen doxam ajzaahu doy na ko waaye nag waxad ata ñaawal na soo doxoon lépp sax li nga def baax na sa ñaaw moom baax na mais def nga lu ñaaw a ñaaw parce que daa ni ki noonu law lam yarmul su ñukkul woon bil kulli yëpp si mboole seen ni ki noonu soo ñukkul woon dara lépp nga euh, euh, ñukkoo dara lépp da nga ko dox ni ki noonu tamit li nga def ñaaw na lool waaw ak rukunu rabi ñeenti ponk ñeenteel ponk bi alwaqufu mooy taxaw bi arafa si arafa saatan waxtu min leylati naxri si guddi loj bi wal wuqufu taxaw nag raakiban di aji war afdal moo gën nga taxaw war nag moo gën su amul loo waree nag nga nga nga toog nga taxaw dégg nga illa an yakun la fa nekk nag bi daabati si daabam udun ngant maam daabam bi mënul ñëw ndax dafa feebar yu demee noonu wala amul essence yu demee noonu wala xiyaamu taxaw nag afdal moo gën ñu julli si toog taxaw moo gën toog wala yi su bu mu toog nag illa taabin ngir lu ngudub coona lu dul coona loolu dafa sonn lool walu ko bu taxaw nag naxaaran si bëccëg ma al imam ànd ak imam waajibun aji lu war la bëccëg eh, bi soara si bëccëg ñu taxaw ànd ak imam mu jiite tisbaar takusaan loolu fa war yu jubaw def na ko jàngee bi demi si deret ida tarakahu ñoom bàyyi na ko soog bàyyi su dul ngant ida in kaana taraku li xayri uddin la damma alayhi waaw sara yi baax na lii de tey